Tiwaawan ma fi indi parce que ñoma fal kenen faluma motax ñom ñoom samay mbir ci yalla la dépendre ak ci ñom wa Tiwaawan kep kuma laal Tiwaawan nga koy defantel ci carton yalla Tiwaawan dafa am ICS am MDL am CEFOS muy ay usine yo xamni ni dañuy transport dañuy dañuy exploiter phosphate ñi di exploiter zircon mais ci commune yi nu nek bo ñëwee ni fi usine am fi buy génné ay milliards sax duñ la gëm parce que Daaru Xuddoos ci commune yi gën a ndóol ci la bokk te ICS 100 milliards lay génne par mois loolu war ngeen koo xool beneen bi ci des MDL yee di génne ay milliards moom bi nekk ci biir département Tivaouane te ba tey chômage Tivaouane la ëppee plus de 5000 xale ñoo nekk di dawal ay moto jakata ñi di ñi di def euh, euh, transport ci clando yi mais loolu jaaduwul kuy wàll yaan nag sa dëkk dafa tëggul. beneen bi ci des mooy rutu Mboro Tiwaawan nga xam ni tey accident yu bëri lay causé parce que ñi fay jóge di dem ICS ay camion yoo xam ni poids lourd rek ñoo fay dox li liñ fay rey ci boroomi Jakarta ak boroomi boroomi oto kenn xamul nu nu toll mais tali boobu boo xam ni fa la ñuy jaar di dem di rooti ay milliards tali boobu waruñu ko mën a defar ay kàmb la am yoo xam ni tey da ngay moytu di def camion yi daanu ah nit ñi di dee loolu war ngeen ko xoolaat. benen bi ci des moy jogo amna école bo xamni bo démé ba 3 troisième da ngay muju obligé ñu transférer la Mboro da ngeen ko war élargir mu nekk lycée parce que tamit budget bi suñ démé ba bañuy voter budget Sénégal wa Sénégal motax Sénégal Tiwaawan ci la bok mais Tiwaawan kenn faalewu leen kenn faalewu leen Tiwaawan tali bu baax amu fa liggéey amu fa bo démé hôpital mam Abdou Aziz ña fa nekk ñepp

dekk bu am guerre lañ koy tek mais war nañu xolaat suñu bop dañu war xolaat suñu bop inflation it nonu hydrocarbure légui bientôt exploitation pétrole dina am xana su boba buñ ñu ca yeggee layam layam dotul amati benen bi ci dess moy stade municipal Tivaouane Moustapha Niang moko fa defoon ñaata député ñoo fi jaar ci digënté Moustapha Niang ak man mi ba ni may waxe jaw lan néwon ci stade ba stade ba nam melone mo fa né gàcce la sax ñu naan stade bi Moustapha Niang ko fi tabax té Macky Sall ñaata nit la jël am jël leen Tiwaawan ñu nekk ay ay ay homme d'état wala leneen ak leneen té Tiwaawan benn changement amuko ko benn changement amuko man Tiwaawan laa dëkk du ma fen lu ma leen wax rek loolu mooy li am ña nekk Tiwaawan di liggéeyal Macky Sall defuñu fa dara dara defuñu ko fa Tiwaawan amul benn looy ñëw infrastructure bu ñu la kii kii Macky Sall la ko def wala leneen hôpital lañ ñuy lañ mais hôpital ba daa pareegum dañu Ablaye defaral moom la ñuy fajoo ba léegi te niveau 1 la barki démb laa fa dem évacuer fa malade kenn xamul lu hôpital bay nuróol mais moment bi yéen ngi defar hôpital mais fexe leen ba au moins hôpital bi ngeen ngeen plateau technique bi ngeen ngeen ngeen defar ko nit ñi baña a mais so ñëwee patient yi ci souf lañ leen di tëral li lay wax ni lu leer la yalla ma tim benen bi ci dess village artisanal bu ñu defar ba mu paré ñu jël ko denko ay mécanicien te moment boobu jën jeunes ñu ngi taxawaal mu ngi buntu EDK soo passé EDK ba euh, am na benn bâtiment bu ñu fay tabax village artisanal bi nga fi teg ngeen def ci ay milliards ba pare tëj ko noonu bàyyi ko kenn kenn liggéeyu ca loolu amul sens beneen bi ci des ñun prison la ñu génne li xew ci prison yi jëggi na dayo am na ay chambre yoo xam ni billaahi wal kitaabi dañuy toog ba fajar toog bu kii toogee kii kii toog ci wetam def nii ba fajar prison ba duñ lek lu baax ña fay liggéey prisonniers yi kenn du len fay ay booli la ni yanu da ngay gis ño xam dañuy feebar ba paré buñ feebaree ay paracétamol ak yu kenn xamul mais lool dafa faj nit gis nga Sénégal gi bu ngeen fi bëggee togaat di ngeen ci def yité bu soobee Yàlla La parole est à notre collègue Ndiaga Niang, Sira Ndiaye, la suivante. Monsieur, le Président de l'Assemblée nationale, Messieurs les ministres